الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخديمه سوي رضوان وتمكين bokk jullit yi bokk taalibe yi seen bokkum taalibe Moustapha Guèye indicatif Seexul Xadiim di taalibe sëñ Abdoul Ahad Mbacke moom sëriñ Moustapha Massamba radiyallahu taala anhu tey soppee sëñ Mbàkke moom maam soxna Lo Jóob Taayif radiyallahu taala anhuma tey ànd ak sëñ Muntaxa ci liggéey sëñ Tuubaa saa su nekk te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér tey roy Cheikh Abdou Lahad ci dëgg radiyallahu taala anhu ñaamaan mbégte rek di santaat yàlla bu baax di julli ci gën ci mbindee sallallahu alayhi tey santaat sëñ Tuubaa bu baax ci bi ñu yàlla mayee nu fekkewaat jataay bii nga xam ne moom lañ leen tànnal fas yéene ci ànd ak yéen di ci fàttalante ak di ci soññante te jàpp ne it lu am njariñ la tey ñaan yàlla it muy doon luy jariñ di ko def ngir ab liggéey bu ñu jàpp ne sëriñ mën sëriñ tubaa mën na koo gërëm te yàlla na ko sëriñ tubaa gërëm jàpp ne yit sëñ Muntaxa lañ ciy jàppale ndax moo yore kilifteef ak yoon wi mu toll ci ñaar fukkeelu waxtaan ak benn ci waajtaayu màggalu Tuuba poñ yépp wala yi ci bare bare bari jàll na la ko dale ci première safar ba ba ci ñaar fukkeelu safar bii fukkeelu safar bi mujj nag muy fukki fan yu mujj yi dañ ko bëgg a joyal jëmme ko ci kuréel goo xam ne kuréel la gu jóg ne dañuy liggéeyal Serigne Touba te sët yi Serigne Touba tànnaloon boppam gannaaw ba mu waxanteeg seytaane ci njërim gannaaw boobee mu bëggee ñëw dugg ci kër ga moom góor mag te Serigne Touba fottasu ko ne ko sa tànk boobu bu mu fekk ci morom si morom ji di dugg ci kër gi. góor mag daal di méccatu méccatu ca kaw ciibatu ànd koog mer lool ne ko gis nga de lu ma bëgg a def ci sa kër gi rekk nga yàq ko waaye lu bon lii nga gis ma gàdd ko ba nga li ma wàññi ci sa kër gi laa ko bëgg a jóor yàq li nga fi def lépp Sëñ Tuubaa ko boo ko fi xëppee de sama simiñ wii ma yor danaa la ko xam mu daal di bàkku nag daal na mer naa lool de ndax yow de danga ma tëx tikk mën na lu ma la dara say doom ma tikk mën na lu ma leen dara say saadiyax muy say taalu bi tëma tikk mën lu ma leen dara waaye ñennat ci say sët buñ ma tax ñennat ci say sët buñ ma tax néew ko say sët ti ma tikk ñennat ci say sët duñ ma tax ba mu waxee loolu rek la sëñ Tuubaa daa di seppi sëti boppam muy sët yi nga xam nañ ko donn ci diine ak topp ndigal daan leen di ber ñaan ci yàlla nag yàlla barkeel leen muy surriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal Mustafa taj tayyib mu dellu na wahab lana surriyatan tuddiim alxamala saaliha yaa xadim mooy lii nu bëgg a waxtaane kon sët ya mu tënnul ñooña mooy wa maskani sallim minal fujaari kon nag loola mooy ubbisteeg waxtaan wii ñu leen bëgg a defal te bëgg ko jagleel waa Touba ci kanam sëti sëñ Touba yooyu jiite ko nekk ca biir di dox dox bu jub dox bu wóor te duñ ne guleet nag ci satub sëñ tubaabu jóg di liggéey ndax la ko jiitu ba yoon wi tegu ci kanawaa bii mu tegu di dox doxin wu jub ci organisation sëriñ Cheikh Mbacke ko jëkk a taxawal fii kon ñii dañoo ñëw di répété wu waat kon sët yooyu bu nu jógee futti seen mbubb fas yéene liggéeyal sëñ Tuubaa ndax la seen waajur ya si ñëwoon ci sëñ Tuubaa muy jaay seenu njureel jënd du taalibe te waxuñu ko yam ca dañ caa dox ba àddina sépp xam ne ñii ak taalibe leen gën a ñorub njureel ñoom bi nu dikkee dañoo répété waat loola ñoom sët yooyu bokk na ci ki ci jiite muy sëñ bu Mbàkke moom Cheikh Mamadou Fadal ak mbokkam yi mu ko bokkal yépp mënuñu fee tuddee tur ndax buñ ko tuddee dana am ñu ñu bàyyi te émission bi mën naa dem ba li tax ñu koy taxawal day gudd bi ñu ko taxawalee tur wi nga xam ne moom lañ moom lañ moom lañ jël tur woowu du xalaatu nit a ko mën a def man lu ma bëgg bëgg sëñ Tuubaa mënuma am xalaatu mën a tudde ak kuréel guy jóg di saytu liggéeyub Tuubaa tur wu gën a jub woowu ndax Tuubaa ca kanam ba kuréel yi daree sosu ba tey kuréel gu ne tudde nañ ko tur waaye bu ci gën a jub bii moom mësuma ko gis kon loolu day wane ne borom dëkk bii moo leen tànnal tur wow moo leen tànn ñoom tamit tànn ñi ci nar a liggéey ñëpp koo xam ne sii nag saw ñaq du ci dem sa dara du ci dem bul mere ma sàmba bul mere ma dem ba xamal ne sëñ Touba bëggul nga bokk ci liggéeyam bi ndax sëñ Touba liggéeyam bi dara du ko rax dara dara dara du ko rax loo bari bari alal mënoo rax ci liggéeyam sëñ Touba bi ndax boo demoon ba ci bëgg a joxe rek dërëm boo yëkkati rek cinquante tonnes lay peese ci yow. seytaane laxasu ci ba nga dem ba bàyyi ko ba doo ca def dara nga seetal nag liggéey bi nga xam ne yow sa yoon du ci nekk képp ku ci yëkkati di ca defet xam ne sëñ bee la tànn waaye bi sa coobaree bopp du sa xalaati bopp noonu sëñ bi nag taxawale couleur gi taxawal tur wi mu tombeek xalifa bii fi nekk mu soññ leen jox leen message boo xam ne même ku bokkul ci kuréel gi sax war ngaa jël message boobu utiliser muy lu ngeen di def na sëñ Tuubaa tax ndax xam ne ne sëñ bee leen tànnal moo leen tànnal tur bi moo leen tànnal liggéey bi tànnal leen murid yi ngeen nar a àndal comme na ko yàlla tànnale woon ñi ñi mu àndal bam naan wali xaada ax baaban bi usirum nuska sëñ bee ko bind yàlla ma tànnal ñoo ñi di samay soppee ngir ñu wane samay monore ca biir tànn googee ngeen nekk tànn gi du fi jóg mukk ndax sëñ bi nee na darajati bi leen tihaa i yar fawu walaahu lii bi leen tihaa i yan fawu sama daraja waxtu yàlla da koy gën a yàlla yit waxtu jot daf may yokkal li nga xam ne mooy li may jariñ waaw mboolem lu ma bëgg rek bés bu set suñu borom da koy dolli bés bu set nga gis ci yoon wi loo xam ne ki ni luñ ci def la lu bees loo ne si tànn sëñ Tuubaa la te ku ko gis na nga jéemu mënul su fi taxaw di lim ne leen nag lu ngeen di def na sëñ tubaa tax bu ci kenn gis sa bopp ndax sëñ bee leen tànn def ci biir nit mën na caa bëgg a bokk te ci bokk kon nag loola yéen bu fekkee am na ba ngeen xam ne sipooru Touba ci kanam taxaw na yéen a ngi laaj nit ñi lañ man yéen a ngi def fuñ xam ndax képp ku yor di nopp di dégg de da ngeen toog dégg ne seen réalisation yi jàll na seen communication yi jàll na waaye ku yori bët di dox ci biir Touba gii de da ngeen gis ne foo wëlbati ko dox ci li wër corniche bi yépp danañ xam ne yéen leer gii yéen leeral Touba yàlla dana ko leerale seenu yoon gën di gën a jëm ci kanam ku ci bokk rek say boo nga ne alhamdulilah te xam ne loo fi gis mu rafet rek xamal na yaa nga bokk ci liggéey sëñ Tuubaa léegi nag ci biir liggéey boobu tey fi lañ bëgg a taxaw dolli ko ca lañu waxoon daaw ngir wax ju baax du jeex wax ju baax du doy ab soññe it waxtu jo da ngaa war di soññe comme wane ngeenu yoon ba nit ñi xam fi ngeen jëm te li ngeen dese moo ëpp fuuf li ngeen weesu te li ngeen dese saay saay da cee saay saay yi dañoo jóg temm ci pour yàqu ko ngeen di jël bayit wa sëñ Tuubaa waxoon ne wa maskani sallim minal fujaari wamnun ala ahli bi ma in jaari ñaari bayit yooyu da ngeen cee tombe ndax daje ngeen ay kàccoor yi sëñ bi doon muslu waaye daje ngeen ak lu dëkk bi soxla lool muy wàllu ndox réalisation yi war am ci dëkk bi nga xam ne dëkk bu dul Touba ab état yilif ko état bitse la koy wutal wutal ko ministre wutal ko ay député ñu koy saytu dafa def lañ fa war a def comme dëkk bii nag moom bokkul ci dëkk yooya la ñooñee di présenté ci état ñun moom la ñuy présenté ci Sëñ Tuuba bu ñu ci xaar ma sàmm bu ñu ci xaar ma dem bu ñu xeeb sunu bopp bu ñu xeeb sunu xam-xam comme loolu nag xaalis si boobu amuñu ku nu ko jox te yaakaaruñ ko ci kenn nag ku dul yàlla mi koy joxe te sëñ bi fàggul na nu ko fàggu koo xam ne si ku dox jëm ci da nga da nga ci génn léegi nag loolu li ko waral mooy nañ fexee taxawal ay projet yu liggéey projet yu liggéey waxoon naa ko daw dama koy répété waat bunt yu yaata la yooyu benn bu ne mën nañ ko bi waxuñu ngeen xëy song bunt yépp di ko ubbeendoo mënta nekk par benn ngeen di teg ba booba jéego réussir ngeen ubbiwaat beneen jéego man mii ci sama wàllu bopp de li ma xalaat ci sama xalaatu bopp nga xam ne man maa ko xalaat mooy man projet bi ma leen tegal gis ngeen na tuubaay gii ni murid yi ak wërsëg wi leen yàlla jox ak li ñuy yittewoo te mënuñu koo ñàkk lenn lu ci na man ngeen a xool loola ngeen ubbi fu ay projet par benn lañ koy benn benn tal projet bi ñu ci jël tey nag mooy problème mu élevage elewaat nag yaatu na buñ ko waxee nag a ngi ci buñ ko waxee xar a ngi ci bëy a ngi ci gëléem a ngi ci ganaar a ngi ci te ñett yooyu yépp lu dagan la ci ab jullit mu di ko jëfandikoo te gis nañ ne loolu li ci Tuubaa di consommé kenn xamul ni mu toll te dañ koy jéggaay ni ci biti indi ko dina ko jaay nu mu leen neexe commerçant yi dugg ci biir di ko détaillé nu mu leen neexe di ci takk sunu biir ba gis ngeen lii ci xew bu yëggul ci wàllu sablis yi génn loolu rek war na leen a te yéen a ci mën a dimbali sëñ Touba projet bu njëkk bi wàllu élevage boobu bis bii nga xam ne moom la génn muy màggalu tuubaay gii xam ngeen li muy soxla ci wàllu nag xam ngeen ni mu toll kenn mënu koo xayma da gis kilifa gu nekk wala kuréel gu nekk. ne ñoom at mu jot nangami nag danañ ko rey di ko def ay gétt di ko jiital te nag yooyee day daanaka benn jógewul ci réew mi wala bu jógee ci réew mi benn jógewul ci communauté mouridisme dañuy topp biir réew mi ñi fi yore nag ñu koy jëndaat ci ñoom jël alal ji jox leen ñu defaat ci seeni koom wala ñu génn dem fi nga xam ne mooy réew yi ñu wër mu fu mel ne Mali fu mel ne Mauritanie ak dëkk yi ko war jël ay milliards di ko jënde ay gëléem di ko jëndee xar di ko jaarale ci frontière bi ak nag def fa ay at nag ab milliard nga jël ko génnee ko senegal dem ba Mali nga def ko ci ay nag jël milliard dem ba Mauritanie nga def ko ci ay gëléem ak i ganaar ak i xar te ñooñu da ay pays africain comme yow loolu bu ngeen ko analyser rek man ngeen a tàmbali seen produire ci wàllu élevage boobu waxoon naa leen a ñeent xeb lay téewaay man ngeen cee tàmbali seen dëkk ba man koo décentralisé mu dem ci dëkk murid bi man koo décentralisé mu dem ba wër biir Touba tey bu fekkee def ngeen tey ne tuubaa ca kanam ren bi ñu dajalee seen xaalis tollu na ci nangami milliards moo xam 2 milliards moo xam 4 milliards waaye ngeen taxaw waxtaan réunion. wut commission boo xam si ñoom ñooy dox loolu ngeen ne benn milliard bi kat ren dañ ko bëgg a def ci wàllu investir ci wàllu élevage waajal màggal gi ñu xayma ne waaw léegi ban barab lañu war a mën a amee barab boobu ngeen dem lijjanti suuf bu ngeen demee ci gànnaaru Touba fu mel ne côté Touba bel la wet googu jëm kaw lu ngeen fi mën a lijjanti ci suuf suñ leen jox soo xam ne si yéen a koy moomal seen bopp ngeen miire ko ba mu daj miir bu gudd. tabax foofa ay barab yoo xam ne si dana mën a accueillir ay nag yu bare bari ak jumtukaay ya ca war nag magasin yi ñuy def xontu beeg yi def barab yi ñuy def ndox yeeg la ca ajoog yooyu yëpp da ngeen koy fàgguwàlle ci biir par exemple rek ngeen a tey nañ tàmbulee ci jënd ñaari junni nag isin ko ñaari junni nag la ñu isin ngeen jënd ay wëllu wutal ko barab yu moderne yoo xam ne si duñ génn di taxawàllu ci àll bi ngéen di dem di wuti am ñax wut personnel bu ko indi wut seeni oto ñu dem di boobi ci àll bi ñëw di stocké ci magasin bi wut machine yu ko mën a defar defaraan boo xam ne si ñoom buñ koy lekk duñ ci am jafe-jafe kuréel bay dem di boobi kuréel bii taxaw di indi xont bi ak oto yi kooku ñaata emploi ngeen ci mën a dajale yoo xam ne si ñoom dana ngi leen jële ci ak ndóol yóbbu leen ci am koom nag yooyu bu ngeen ko jëlee wut seeni i vétérinaire yu leen koy contrôlé ci seen wàllu wér-gu-yaram nag yooyu bu ngeen ko solee juróom benn weer ci wàllug ñax wàllug repasse wàllu ndox ak fi ñuy tëdd ñu di ko toppatoo di ko defar ba fi ñuy tëdd mën a mën a baax bu ngeen ko solee lu mat juróom benn weer nag wi day daal di mat aw nag nag sëkk par exemple bu fekkee nag yi ay wëllu la ngeen jënde ko moyen de cent mille francs wala ngeen jënde ko cent mille francs jàpp ko sol ko ba mu dem ba nekk aw yëkk yi nga xam ne ismu taraxe yi boo demee seen gétt ga da ngeen fa fekk yëkk yooyu dañuy suur bu mënatuñoo jóg yooyu bu ñu talee noonu tey màggal ak Touba jot ñooñu génn di dem Mali na géttu Touba ca kanam geekat nañ fa dem nga ñëw ne man junni nag laa soxla fekk yow yaa ngeeg ñaari junni nag ñu ne la nag bu nekk neuf cent mille un million amul prix nga xam ne fara ya ngeen ca fara yépp day mën a génnaale ci loola ak la ngeen di fay employé ciy liggéey ak carburant ba ngeen di def ci kii ba ak bénéfice ba ngeen cay am loolu nu mu toll nga xam ne léegi ñoom lañuy jënd duuti génn senegal waaye duuti génn yoonu murit ngeen def administration boo xam ne lépp lu ngeen di liggéey foofu lañ koy contrôler xool ko saytu ko épargne li ngeen ci épargne teg nag wi bu ngeen ko jëndee bu ngeen ko jaayee it da ngeen ciy teg Euh, li nga xamante ne sii mooy yeneen intérêt yu ci amaat da ngeen di wax ne yow nag wi jaay naa la ko un million wala jaay naa la ko neuf cent mille wala jaay naa la ko trois cent mille lenn ci ne da nga ciy teg dix mille francs bu dee un million nga ne un million bu dee trois cent mille nga trois cent dix mille moom jaayee nag wi ci yow mi soxla junni nag yi léegi ñaari junni yi ma ci teg mooy intérêt boo ma indilaatee der bi boo dikkee ma remboursé waat la sa sa dix mille nga jaay junni nag dikk ñu delloo sil la der bi muy junni der kon nag wa dem na junni nag ya dem na waaye junni der dellu si waat na der yooyu nga stocké ko signé combat ak ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew bu dee fu mel ne fii ñuy nekk ci Italie ci région bu ñuy wax Veneto ci dëkk bu ñuy wax Vicenza ci dëkk bi nga xam ne fa la industriel ba nekk muy ñaari dëkk yi muy càmpo ak Arpignano foofu ay patron nga fa yooyu dañuy dugg àll bi dugg réew mi ay Brésil ak fu ne la ñuy dem di wuti ay nag nga signé ñoom kontra ne leen sag màggal temps ci ay der danañ ko am ndax mën ngaa toog di wax ak nit sax te du ngeen déplacé internet bi lépp mën na ko ngeen wut ñu ko man léegi nga xam ne fu màggal gi jeexee ñoom dañuy daal ne bërët dikk rek fay seen xaalis sarse seen i der mu dem géegi jaay ngeen nag ya jaay ngeen der ya keneen ki soxla ñaar fukki nag bu dikkee ngeen jaay ko ci junni nag yi des ki soxla fanweeri nag bu dikkee ngeen jaay ko ki soxla wenn nag bu dikkee ngeen ko waaye la ngeen wax kee ngeen koy wax lu ngeen jaay lu ne da ngeen ci teg bénéfice da ngeen ciy teg dix mille francs yi ne ku andi der bi ñu jox la ko nga xam ne ñoom ku fees sam xar saw nag rek da nga yenu andi bu dikkee ñu delloo la sa dix nga jël der yooyu yépp jaay ko jooñu ñu dem léegi ñaari junni nag yor nga ko yeew nga ko ren jaay nga ko jaay seenub der léegi fare woon nga ci lu toll ci cinq cent millions léegi gañe nga ci quatre cent millions léegi quatre cent am nga ko ci kon léegi bénéfice bi da koy jël épargne ko ci banque bi li ci des nga jël ko dugal ko ci emploi yi li ci des nga jël ko dugal ko ci carburant bi su ko defee nag nday ja nga jënde woon ñaari junni nag yi moom ñëwaat léegi nga fexe daal di jëlaat nday ju toll noona wutaat feneen ci biir tubaab fu mel ne sowub Touba wala côté Darou Salaam ubbi waat fa geneen gétt fi nga tàmbalee fii nga tàmbalee fii wutaat beneen personnel personnel baa nga yokk gétt gaa nga yokk moom it nga jënd ñaari junni nag defa fii ñaari ju léegi ñeenti junni nag léegi ci deuxième année bi moom ngeen produire bu déwén jéegee ngeen dem ci xiblab Touba penku bi moom it dafa gétt ko ñaari junni nag ngeen fay def léegi am ngeen juróom benn junni nag bu beneen yoone ngeen dem ci sowub Touba defaat fa geneen gétt goog ñaari junni léegi juróom ñetti junni nag moom at mu jot màgg ak moom dana ko produire juróom ñetti junni nag nag yoo fare ci exemple nga jël benn milliard def ci mën na laa coûtewaat mën na laa mën nga cee man mën nga cee gañewaat lu toll ci 4 milliards boobu xaalis fan ngeen ko mën a gañee ci taxaw di laaj mënta nekk ndax laaj bi moom bu buñ buñ ci bëggee continuer dana sooxe te bu ngeen xoolee sooxe na ndax ki mënoon te mënatul kooku duutu teg ki mënoon dem ba ci biir mu démissionné duutu teg ki nga xam ne mi ngi tegit boo ko xoolee bu matoon fukk léegi juróom a koy def te fare yi ngeen doon fare dafay yokk bu yàggee loolu dafay doy war bu yàggee moom bu ngeen defee at yu néew da ngeen daal di mën a am ci kees gi loo xam ne kenn du mën a xam ni mu toll te it am na lu ma fàtte nag yooyu wax naa nag wi wax der yi waaye meew mi fàtte naa ko tudd meew moom yi nga xam ne moo ciy génne am na machine yu efficace yu tubaab yi yor wut seeni setar na seeni mbànd wut seeni docteur yoo xam si ñoo koy analyser nga xam ne ñoo koy rat buñ ko ratee li ciy génn ci ay liitar nu mën a toll waxoon naa leen ne man ngeen ko mën ngeen cee liggéey ci matière lu mel ne pharmacie bu boobaa da ngeen mën a taxawal sax sinu pharmacie boo xam ne sii ci wàllu meew moom ngeen koy liggéeyee su ko defee pharmacie boobu day mën a dugg ci marché bi wala ngeen am seen palaas yi bopp bu ñu nee ba ci waxtaan yi ci kanam dana ci dikk ndax dañ ko bëgg a def étape étape su ko defee bu ñu ko defee matière de formation foofu nit ñu bëree fay liggéey li mën a dem am soow ñu teg ko ci marché bi li mën a def meew nga xam ne dañuy soxla meew moom i tamit ñu teg ko ci marché bi ku soxla meew danañ ko liggéey nii ñuy liggéey sosee ndox yi di la ko jaay ku soxla soow it danañ ko liggéey nii ñuy liggéey sase ndox yi jaay la ko ku bëgg pharmacie danañ ko liggéey ci forme euh, façon bu am solo bind ci adresse Touba su ko defee ku soxla pharmacie am ko Touba ku soxla meew am ko Touba soow am ko Touba ku soxla nag am ko Touba su ko defee waa bitim réew yi nga xam na ñoom màggal gi dañuy ñëw di yor seenu baag di ko lugat di tànk di yóbbu ci seeni réew yi nga xam ne gëmuñu yàlla it boo boobaa der yi ngeen di leen ko mën a jox ñu daal leen di fay sarse seeni i conteneur dem ñaari at bu ngeen ko dawalee rek da ngeen ko mën a décentraliser yóbbu ko ci dëkk yi ci des daaru muxti mën nañoo am benn gétt daaru salaam mën na am benn gétt daaru karim sëñ Masamba mën naa am benn gétt jurbel mën naa am genn gétt dëkk yi ko wër nga xam ne même bu dul màggalit ku soxla ci yooyu genn rek léegi moom dañuy adhéré wu ci Touba ci kanam su ko defee ngeen wutal ko këyit nag yoo xam ne lenn lu ci ne la ngeen ca war a fay ak fa war a jaar dafay jaar ndax nag yi ngeen di jënd bitim réew ñëw di ko produire ci réew mi dafay am fu muy jaar foofu it ngeen fexe ba lijjanti ko ci kayit yu leer nañ ba kenn du leen ci mën a indil benn problème projet bii nag waxoon naa leen ko daaw dégguma kenn ko ci àddu prononcé ci wooma ne ma nangam wala nangam te gis naa ne dem naa ba am ñu sàcc projet bi ba tàmbali di ko doxal ci réew mi te ñooñu ñu ngi liggéey ji ab état dem nañ ñoom bay dem Hollande di fa jënd ay nag ñëw di ko produire bañ génnee doo seeni doom naan dañoo jël alali réew mi man leen man jël alali réew mi loolu intéressé man daal moom xalaat bi moom ma intéressé lii kii def nag waa Touba ci kanam laa ko yéene woon te mën nañoo dem ba màggal gi jot ca nagam yooyee la ñuy dem di jëndi te kenn nit képp la te lu kenn nit man mbooloo moo ko ko dàq kon ñi ngi taxaw foofu insha allah bu ñu ñëwee ci waxtaanu ñaar fukkeel wi ak ñaar danañ gën a mën a tas li nga xam ne mooy thème boobu ñu yëkkati ndax des na lu bari lu war a ñëw xar yi ñëwagul ganaar yi ñëwagul gëlëm yi dikkagul tool yi mbay yi dikkagul magasin yi dikkagul yi ñu war a ubbi ci dëkk bi ba ci jumtu yeneen xeeti secteur yi ñu war a liggéey muy lii nga xam ne moom la ñuy wax euh, self service yi ñuy jaayee essence te gis nga ne kenn ku nekk yaa ngi koy ubbi ci dëkk bi ak gaz yi nga xam ne nit ñaa ngi koy def ñu naan depp gaz nangam wala gaz lopp maam jaara wala yu mel noonu yooyu yépp danaa ci dëkk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi عن المعاصي وجميع الفتن ولتورج الأخيار من فؤادي ولتدخل الأنوار في هيادي وكن معيني على ما يسلم ولتكفني جملة ما يخبئ ولتغنني دقائق الأسرار بالعلم كالنافي والأنوار وهذه اليقين لي اليقين والإبان والسوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكسب واليان والسعادة وعلي أن أمة خير المرسلين وفرجا جميعهم جميعا يا علي وروى باري سمعا بكلهم والعجيب والتوب واغفر لهم وجلني يا ربي من أعظم النباء إنك أعظم ونصيبا في التمام وجلني يا ربي من أعظم النباء إنك أعظم ونصيبا في التمام وجل جميع ركاب لك وسكناتي تاحة بفضلك وجل حياتي ومماتي في سنن والفرد والمندوب سرا والا واجعل مماتي راحة من نصاب ومن جو ومن خرام ووساد وآمني فالكل مقبولا حتى أكون مهتدا مقبولا ومسكني المسكن المبارك وسيرا لذلك ونازكا أدعوك أن تجلو دار التخاء والحلم والدين والدار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة لناتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلم ومدفعا من كل حاد مجرمين وعجبا لمن بدخل ارتدى وحجة لا مخالف خلال ومطلبا لتاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومدركا لسبل امتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدم كل دير وسببا لفر خير الخير وسببا لدفع دير العيب يظهر رزق وأمان ورامة وساعة كل أوان يا دافع الأسواي والأقدار بالمصطفى فكل سؤال داري واغفر لمن بنوا بنا واغفر لمن أمرهم بجميع ولجميع من آله مرى بناي الذي بفضلك تلا واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لا لخير ركنا ولتجعل لا ساعة الامتلاء نورا ورحمة بالامتلاء ورزقا على بلنا في النصر واليسر على التوالي وليجثي بهم من ينفع ورمت سيفي بقلب يخصم وليعفي دعاء اسمه مع القناعة بنفس كسبه وزوجة سالعة تعين فلا تقاول بالرياء معين وزوجة سالعة تعين فلا تقاول بالرياء معين baas bi lan kal no bedil liqaabat هلا يا ما جملة عيني يا جمد فاذبب سرعة لقاة كملا جاري وما فيها جميعا مسجلا واذبب سرعة لقاة كملا جاري وما فيها جميعا مسجلا والتبق للجميع في المكنون خيبك واجمع عن الفتون وأرجو الجميع في مكنوني خيبك واجبنا عن الفتون وعن سرار الخلق والرصايا والجن والشيطان والبلايا وعن سرار الخلق والرصايا والجن والسيطان والبلايا وامرني بالتقى ونوري وسود والورع في دوري ومسكني المسكن الخبراني ورشد والإرفاد والإلوان ودار إخلاد وصدق ووراء ودار سنة ومنج من بداية واجل دابا مسكنا تعلمي wa mawdia alfikrati